ab jokkaloo guy melale borom ci sunna ak melokaan ba yàlla bindee nit ñi moom yàlla mu bëgg ko ngir nit ñi nekk ci anam bi gën a mat tamit anam bu gën a rafet yonent yàlla bi sallallahu alayhi wa mu ne juróom a ngi ñi dafa bokk ci sunna ak mbindub yàlla alxitaan wal istixdaad wa taqdimu al azafir wa natfu l ibd wa qassu shaarib melokaan mooy wat sa karaw ba nekk sa nëq dañ ko tuddee noonu ngir jëfandikoo nit ki di jëfandikoo laam wala rasoir nit ki mën na koo dindee ci lu mel ni ay tondeuse alxitaanu dafa war ci ku góor mooy jongu sopp nañu mu dal di nekk ci juróom-ñaareelu fan bi ci liir ngir mu dal di nekk lu gën a gaaw téwér waaye tamit ngir mu màgg ci anam bi gën a mat wat say moustache wala wàññiko loolu loolu daf cee nekk taar waaye tamit ak wuuteeg ñu dul jullit dagg say we ngir dindi tilim tilim yay dajaloo ci suufu we bi dindi karo ba nekk sa poqotaan ngir laab waaye tamit dindi ay xet ya nga xamante ne moom neexut dinañ boole ci yooyu yeneen juróomi melokaan mooy yoor sa sikkim soccu saraxndiku ak gàllaxndiku ak raxas fa ñaari yax dajee ci baraamu loxo yi ngir dajaloo bum fay dajaloo ay tilim tilim ak laabal sa bopp ci ndox jamono bu nit ki demee ca wanag ba suñ yaay Aïcha radiyallahu anha mu ne yonent yàlla bi sallallahu alayhi wa ne fukk ngi nii dafa bokk ci sunna ak mbindub yàlla dagg sa moustache bàyyi sa sikim soccu sarax ndiku dagg say we raxas fa ñaari yax daje ci baaraamu loxo yi dindi karaw poqotaan dindi karaw nëq waaye tamit jëfandikoo ndox jamono ba nga demee wanag ak gallaxndiku